ربنا تقبل منا إنك إيش يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا fii ci yi maam jaare ji nekk ci poroxaan lañu ñu tegee xeex bu njëkk bâtiment bu yànj bi nga xam ne moom lañ fas yéene tabax ci daara ji mu nekk ab dortoir maanaam fu gone yi di dalloo ñi ko war a liggéey nag mooy fédération daayira maam jaare yi nekk ci Dakar ak li ko wër ci njiital soxna maam jaara Mbacke bintu Serigne muntaxa Bachir tegum xeer bi nag Serigne Mountakha Mbacke Bachir yabaloon na fa Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Fallou Soy bu mu teewal ko fa waaye it ki nga xam ne moom moo di Serigne Abo jaxatee di directeur daara Maam Jaara ji teewoon na ko ànd kook yeneen i kilifa. yaa rabbana bi hurmatil Habbaasi wa hamsatin annik fi kulla baasi soxna yi tamit délégation la boo xam ne ñu nga bàyyeekoo ca dakaar ànd ak yeneen i góor yàlla ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ne dañoo bokk ci fédération daayira Maam Jaara yi nekk ay jàmbaari Maam Jaara ñëw ànd ak soxna si tegum xeer mi fas yéene ànd ak moom liggéey bi ba keroog muy noppi. liggéey bi nag liggéey la bu ñor lool Serigne Mountakha Mbacké Bachir moom moo leen ci jox ndigal ginnaaw bi ñaanal leen ñoom soxna yi nag kenn ku ne wane na ci projet bi nga xam ne moom lañ ci daara ji ginnaaw bi ñu tegee xeeru ba noppi mboolem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ fa soññe nañ bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne kenn ku ci ne war na cee jàpp. Euh, mbirum soxna jaara mbirum soxna yi la soxna yi ñoo ci am tawféex waaye ñi ngi sant bu baax nag góor yàlla yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ndax euh, bi ñu leen ci soobee ba léegi wala bi ñu ci sooboo ba léegi ñi ngi ciy am yokkute bu baax a baax a baax waaye di santaat mboolem ñi nga xam ne. sunu borom boole na ma ak ñoom ci liggéey bi ñu taxaw ci temm ñuy samay mbokki bopp ñuy may wax jàmbaari mam jaara yi ñi ngi taxaw eh, am yéene am pasteef boo xam ne eh, gis naa ko moo tax ma ñemee semb li nga xam ne semb naa ko ci daara ji kon maa ngi ñaan sunu borom ba mu nu eh, kàttanal nu wéral nu may nu xéewal yu yaato yaato yaatu ba lépp lu nu yéenee def ci liggéey bi rek ñu am ci lu kawe kawe suñu njot ànd kook suñuy mbokki jullit suñuy mbokki taalibe waaye ànd kook suñuy mbokki bopp ànd kook mboolem mboolem ñi nga xam ne rek am nañu yéene liggéey ci toolu lislaam bi ci jaaree ko ci soxna jaaratullahi Mariam. ku mel noonu nag liggéeyal ko ñëpp la war waaye ku yàlla defal tawféex ba nga bokk ci ñi nga xam ne da nga jàpp ne sa warugar la. nga ne ca te bañ koo booleek dara loolu tawfeex gënu koo kawe soxna si nag ñi ñi ñi ngi lay ñi ngi lay sant le sëñ Tuubaa baax eh, sant le sëñ Tuubaa baax ndax loo xam ne ñëpp la war eh, nga def ko sa warteef jëme ci sa yitte ak sa pëseef keroog ba ñuy jébbale liggéey bi la sëriñ bi wax ci kanam mbooloo mépp ñëpp dégg nañ ko dafa wax ne moom amut genn bëgg cofeel gu muy beral ak njaboot wala kenn moom fi mu xas nekk ci sëñ Tuubaa képp ku ko fa fekk muy sa lépp te loolu mooy li sëñ bi waxoon rek bi sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ak sëñ Massamba ak sëñ Mor Roqe bu sa ñëwee teew ci kanamam dafa leen wax ne leen eh, man duma magi kenn duma bàyyi kenn duma nijaay kenn fii li fi ne yëfi yàlla ku ko wut si may sa lépp ku ko wut si wut jotuwuñ dara waaw kon jëmmi pas-pas boobu nga xam ne ci la sëñ bi daa dox képp ku ko fi nekkalit foofu rek ngay mën a dox euh, te loolu rek la gis ci yow bi may wax ne bi may wax ne man naa fi ñëw euh, firndeelaan na lool yi waaw ne ma ne ma kon gën naa leen a boole na ngeen ànd ci pësteefub Sëñ Tuubaa bi. fédération bi it ñuy wax ne yemul rek ci ay liggéey yoo xam ne da ko war a taxawal ci daara ji di ko ànd ak fondation Maam Jaara bi fas nañu yéene. lépp loo xam ne soxna jaara yi soxlaati nañ ko ci biir daara ji fédération bi taxawu leen ko dem nañu gis sëñ aboo mbaak sëñ abo jaxate mi nga xam ne moom mooy directeuru daara ji toog ak moom waxtaan ceeg moom ndax noonu la ko sëriñ bi santaane woon biñ ko waxtaanee mu wax li nga xam ne moom la daara ji soxla ñu daal di xam ne tey ji loolu priorité la ci daara ji ñu ne nañ ko tàmbali muy lan muy fas nañu yéene biñ tegee xeeru njëkk yi ba pare dafa am ay pàcc ci liggéey bi liggéey bi nag fi ñu koy tàmbalee mooy gis nañ ni dafa am benn liste d'attente boo xam ne dafa bari lool ci àdduna bi ay soxna jaara yoo xam ne ñu ngi taxaw bëgg dugg ci daara ji te amuti place ñu projet bi moom li ko tax a jug moom mooy créer ay dortoir ñu xam ne balaa ngaa créer ay dortoir dangaa war a créer conditions yi nga xam ne mooy tax soxna jaara yi nekk ci biir te ku ne xam na ne boo yokkee daara di nga yokk jàngalekat boo yokkee jàngalekat dunda ngi lay xaar ci kaw loolu moo tax nag tey ji ñu teg xeer wu njëkk woo xam ne lépp loo xam ne rek ci daara ji la jëm liggéey boobu ci la première partie bi nga xam ne moom lañ ciy tàmbale mooy dañuy jiitu defar li nga xam ne moom mooy dëkkuwaayu jàngalekat yu jigéen ndax ku ne xam na ne daara ji jàngalekat yu jigéen ñi seen dëkkuwaay xat na loolu bokk na ci yi nga xam ne sëñ bi jubbanti na ko keroog biñ demee jébbal ko projet bi biñ ci jógee ñu ne dinañ fa def benn salle de conférence boo xam ne képp koo xam ne dugga seeti nga ci daara ji di seet sa soxna jaara di nga fa am foofa nekk mën faa nekk pour daara ji nga xam ne diñ da sa noo beneen bi ci des mooy dañuy bu ñu paree ci loolu administration baa ñuy xaar ndax loolu bokk na ci exigence yi nga xam ne sëñ bi nee na nañ ko njëkkee ba pare door a tàmbali projet bi nga xam ne moom mooy dortoir bi nga xam ne soxna jaaree ci la ñuy ne am nañ ci yaakaar ne bis buñ ko attaqué ba def ko pare dootuñu am benn soxna jaare ci list liste d'attente bi ñuy xaymal nit ñi nag ne leen liggéey bi day doon pàcc yu baree bari waaye ci première étape bi ñu ngi ko xayma ci deux cent millions ñu ciy woo mbooleemu jullit ñu ñëw jàpp ci soxna maam jaara soxla na ñëpp. ñu taxawal nii muy fas yéene yokk ci daara ji yokkal xale yi fi ñuy jànge yokkal ñi nga xamante ne nii ñoo fiy jàngale yàlla jaarale ko ci soxna ci maam jaara mu seex Mouhamadou Mountakha ñu ànd kook moom nun ñëpp ñu ngi ciy woo. képp rek ku bokk ci maam maaram rek sax la ñuy wax ndax soxna jaara moom ku bokk ci maam maaram rek siggal na la kon ñoo ngi ciy woo ñëpp. liggéey bi nag dañ ko ànd ak fondation Maam Jaara Bousso bi nga xam ne Serigne Issakha Mbacké moom Serigne Bassir moom moo ko jiite ci fàttali projet bi nga xam ne moom lañ fas ne liggéey fii ci daaray Maam Jaara ji ñu ngi ko xayma ci 200 de francs CFA waaye nee ñu mën na kaa ëpp